taa ñuy tàmbali waxtaan beeg yow ñu jokkoo ak euh, Alaaji euh, Baye Ciss euh, papa ñu ngi lay nuyu di la ziar ndokkeel la kontaan lool ci nangu gi nga nangu ñu jokkook yow laataa ñuy tàmbali waxtaan bi tey ci guddi gi ci télévision Futur Média ñu ngi lay nuyu allo. kontaan nañu lool. fii la fii la fii la ëppee. jërëjëf ndaxte tey xool yëpp xool yëpp fees nañu. wallaahi. waaye balaa may commencé ngeen may ma rek ma ziyaara. Mhm. ki ngeen tuddee bis bi muy cheikh al islam Baye di sama turandoo di sama wasila di kii ma defar di kii sama lépp. Mhm. di ko ziyaara bu baax. gannaaw loolu di ziyaara sama sëriñ cheikh Ahmed Tidiane Cissé di imaamu Medina Baye. ñëpp xam sama ànd ak moom ñu ànd bu rafet di ziyaara suñu xalif Cheikh Ahmed Tidiane Niass ñaan yàlla na ko yàlla bàyyi fi ay at yu bëree bëree bëree bëri bàyyi ko fanu gudd ak wér-gu-yaram di ziyaara rek waa Medina Baye yëpp di ziyaara waa Sénégal di ziyaara di ziyaara jullit yëpp waaw tey di guddi gu màgg ndax ku wax Baye Niass rek nga xam ma xam ne ñun li ñuy dund Baye Niass la mhm. di leen di leen nuyu Pape mhm. lay fay di leen nuyu nuyu bu amul àpp day jox sa wàccuwaay jërëjëf day jox Pape euh, suñu représentant yu di yooyu jóge Medina ñoom bi tey mhm. di yow Mamadou Ndiaye di nuyu ñëpp da wax ne tey xool yëpp tooy nañu wallaahi te li ngeen lu ngeen fu ngeen wanee bàyyi ña si rek taalibe yi kontaan wallaahi waaw di manifester nag suñ contentement ci hommage bi ngeen TFM di rendre Baye Niass hmm, c'est normal dimension Baye dafa romb Afrique wallaahi ba Baye Niass di dem Chine hmm. ba Baye Niass di dem eh, eh, seeti ñoom ko amee Nkrumah hmm. boobu avion bëriwul boobu foo dem tey ci àddina ñoo la Baye Niass ñoo kon dimension dafa romb Sénégal. wallaahi. donc su ngeen demee ba koy rendre hommage nii ñun duñ mun luy dul kontaan ci. Mhm. di leen ci gërëm ci suma tur. turu imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé. Mhm. turu taalibe yëpp. Mhm. ñu ngi leen ñu ngi lay gërëm Pape. jërëjëf Ciss. di gërëm personnel TFM yëpp. ñëw la kenn amul sa fay. di gërëm Youssou Ndour. nga xam ne suma xarit la. wallaay sa wëllëre collaborateur TFM yëpp ñu leen di sant di leen gërëm ci barke Baay. ak Birane sa doom. ak Birane sama doom. waaw. Birane moom doomu boppam la. wallaay doomu boppam la may pareem. wallaay waaw donc. waaye nag. tudd ngeen koo xam ne ku mën a fay la. wallaay. waaw dina ko fay dina leen fay boo gis leen. allahumma amiin allahumma amiin. li ñaan rek. Eh, yàlla moomu bàyyi moomu ngeen ko tuddee. yàlla yàlla yàlla leen fay. allahumma amin koor gi ñu nekk nii yàlla nañ ci dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabbil alamin. allahumma amin allahumma amin ci nekk yàlla na fi génn. amin ba ñu delluwaat ci suñuy liggéey ak ci diine ji. amin waa dina Baye yëpp kontaan nañu. jërëjëf donc yàlla na leen yàlla fay. allahumma amin jërëjëf. allahumma amin jërëjëf. alaaji Baye Ciss ñu ngi koy gërëm bu euh, baax moom itam yàlla nañu ko bàyyi fayal. nit ku baax ku bari valeur la. waaw ku baax ku bari bari bëri valeur. Mm-hmm. waaw li ma ñëwee mu ni ma euh, sama gàmm maam Jibel Ka maa ngi nuyu xam nga sama maam. Euh, tuddee na Baye.